chers amis téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fépp fu waay nekk rek euh, Fanta Samira Coulibaly nuyu na la waaye ti aussi nuyu na la di leen wax bon euh, début de week-end à tous di leen euh, jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ziar fépp fu waay nekk du ma fàtte benn yoon yi nga xamante ne ñoo nekk ci région bi waaye waa diaspora damay jël vol dem nuyu leen ndax ñoom ñoo safoo li nga xamante ne mooy télévision Futur Média programme bu am rek dañuy daal di scotché dam li a baax dem ba Gambia aussi nuyu sama Gambian people ah, ndax bëgg na naa leen fonk naa leen waaye ñoom safoo li nga xamante télévision Futur Média tippoo ko fépp waay nekk rek ka ngay étranger on vous dit bonjour et Week-end Stars démarre dans la joie dans la bonne humeur comme j'ai l'habitude dire avec ma team favorite Samira elle n'est pas seule sur ce plateau et quand on parle de team on va commencer par la grande sœur Adja Vessel Adja Moussering Fallou qui a sublimé ce très beau plateau bonjour. bonjour waa ah, Barça. Ah, mm. bi. <laughs> plateau bi yëpp def na ko ay mayo ba sama dressage bi xaw ma sax nu ma war a def. ko donc maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan. je vous dis bonjour fu nekk fu ngeen nekk dox naa leen sama loxo ne leen asalaamaaleykum et bon début de week-end à tous. Mhm. donc aujourd'hui dañoo ñëw euh, présenter leen euh, dressage au sol. Mm à la demande de Samira. waaw comme fi mu doon nii affaire yi moom da ngeen maa poñe. c'est ma commande. waaw ku si nekk ku naan ma lii laa bëgg nga defal ñu kii naan nii laa bëgg nga defal tos na yow fexe rek bu am demande yow ndax xam naa ne sa demande yow war compliqué du ma ko mën. moom ay waay ci gazon ci gazon synthétique la lay la lay. dama nar a sonn dama nar a sonn waaye yàlla baax na. léegi kon tey dressage au sol lañu mhm. après pour waxtaan leen aussi les bienfaits de mhm. manger ensemble mhm. li nga xamante ni war nañ mën a toog ànd ak njaboot ji lekkandoo dinañ si jéem a développé guus euh, dugg si bu baax waxtaan seeg euh, ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ku su nekk mën see jariñ njariñ incha allah ay ci kanam tuuti ñu daal di ciy waxtaan li nga xamante ne mooy dressage au sol dafa am solo man c'est à ma demande mais je trouve que c'est magnifique li mooy ndës coche li mooy ndës waaye comme nee nañ les femmes d'abord dañu daal di jàll ci Choupa Doupa aussi qui a sublimé ce très beau plateau aussi bonjour à toi Choupa. Samira euh, xanaa tey nag ah, ngeen def seen rose nii. waaw bi garaaw ñuy def ay noir blanc black and white. Mhm. macha allah Adja nuyu naa la nuyu Samira. fay nañu la Amadou. Mhm. nuyu Toch bi nga xam ne dafa sonalaate benn nit la rek benn pepp ñebe ci cin la rek. moom ko mhm. fii Barça yàlla yàlla daf ñu dimbali ba ñeneen ñëpp actuellement ñi nekk ci plateau bi waxuma la ñu ne derrière de. ñëpp nañ yàlla ñu yàlla may ndam incha allah rek ñun nañ ko bàyyi mu am yeneen représentant rek di nuyu ñuy seetaan nga xam ne fas yéene nañ ko def rek euh, comme chaque samedi weekend star fas yéene leen wax événement yi fi mu nekk waaye fas yéene fas yéene fee dalal ay ndanaan yoo xam ne kenn dootu leen présenté Samira ci kanam tuuti ñu yaatal d'accord Choupa ci kanam tuuti ñu daal di wéyal li nga xamante mooy ay programme artistes yi fan fan la tëgg fan mooy jax fan mooy loolu weesoo catalan yi ak madrilèn yi mm-hmm. tey lu waay na ca delluwaat mm. waxkat bi ci koñ bi mm. bandi baa ngi bandi bi tey lay leer de façon waga yi tey lay leer mm. dina leer ci kanam tuuti xam nga loolu bu ma defee transition boobu mooy mm-hmm. dañuy dugg ci xale yu góor yi ci football mm-hmm. nga xam ne instant bi ñoom yaakaar naa football sax moo leen gënal seen gel donc yéen ñi nekk Facebook live damaa bëgg ngeen wax ma ndax Facebook ak seen chéri euh, football ak seen chéri ban ngeen di choisir parce que man gis naa ci ñoo xamante ne yaa ngi dégg day métti yi day métti xol. Amadou kii da kii dafa maa nuyu nañu di siyaare <laughs> su samedi mhm. nag suma xarit. Supa. Mhm. borom événement yi. la waaye nag ñu ngi nuyu tos borom mayo yi. dëgg la nanu la naka waa Mixa. Mhm. waaye nag di la nuyu yow Samira. suñu mag yu baax. waaye nag di nuyu nag ki nga xamante ni si wax dëgg yàlla bu plateau bi taaroo. moom <laughs> moo tax mu taaroo. suñu yaay. Adja Wechel. sant Sel jërëjëf Sel. kon nag di nuyu waa Parcelles Assainies 1 ba 26 ans. Ah. tey nag fii di yomb ak ay ndaanaan yu mag a mag incha allah. ndeysaan euh, xam nga nuyoo bi dafa nuyoo ba pare ber nuyoo bi ci Supa. sama xel dem ci. weeru koor la woon xaw ma Supa war a jàllale ay événement mm. tos gis ni que Supa euh, day def. Mm-hmm. affaire ndogu social yeeg yooyu. Mm-hmm. tos mosul dugg ci groupe whatsapp bi Eva bu dee li may wax du dëgg Eva ñëwal léegi. mosul mm-hmm. dugg ci group whatsapp di wax. tos jékki-jékki rek sànni affiche am tey loolu foofu rek nga ma yóbbu tey waaye bi mu ñëwee fii ci plateau bi. luñ ko yàqul amul. c'était pour yëgal leen. anaan ñu ngi jégalu nuyoo chaque jour nga war ñu bu bees nga saam say mayoon nii xaw ma foo ne. Euh, Samira euh, balaa ma nuyoo. xaar mhm. ma defar samay may. waaw Abdourahmane nee na micro bi ñu ma takkal nii ni ñu ma ko takkalee baaxul. yow tamit <laughs> Abdourahmane nekk fi de. ah Abdourahmane. Ah. gis nga Abdourahmane yow message la ma yónnee. toto bi Abdourahmane nee na Mbaye. waaw micro bi ni ngeen ma ko takkalee lu nii. c'est bon lii ñu mel ni lu koy jaay te ñu ko. mbay nga xam ne nga may waa Spotify ay ay ay ay nii. waaw eh, eh, kan ak kan ñoo fi sol maak Mamadou ngi sol Balenciaga <laughs> da koy saraxe Balenciaga Sénégal s'il te plaît eh, sama mayo la ngi ñu daan nag dañ la fee teg pour nga pour nga modérer plateau man lii man kay moom laa yaakaar man man du ma ko mën man bàyyi naa depuis supa sama mayo su ma ko rangé waatee nga yàq ko émission bi fi lay yem voilà Badou yéen ñaar ñi fay wàcc rek la xamoon ne borom kër gi yow katara yow xamoon ne Youssou Ndour yow Barça lay supporté xamoo loolu Ndiaga Ndour mooy supporter Real. ah Ndiaga Ndour Real lay supporter yow nga jël may Barça teg. waaw du yaa am doole. xanaa a yaa mën a tooñ euh, te Eva tamit complice nga. voilà ndax Eva yow ñu euh, wéeree ma yooyu rek yaa nga fa. léegi nag bu ko defee nag dañuy daal di yow nga wax ma après ndax kii nga. dañuy daal di dañuy daal di nuyoo. Euh, mm-hmm. ñu nuyu fi ñuy yeewoo. maa yooyu baax na muy muy waa ah, Jaxaw maa yooyu instant yii moom <laughs> ah cëm waaye tonton bi waaye. tonton bi yow cëf dëgg loolu ba pare ñu mélangé ko ay ay ay ajaa vaisselle ji nga nu ji nga nu kase ba daal ba pare fas yéene yéeg ñëw ci man gis nga kii moo aay. kii moom muy aay da ngaa judd. kii moo aay waaw dañuy nuyu fi ñuy muy waa jàmm gën Kër Massar. ak mixta bi ñuy noppaloo. ñu nuyu ñëpp. di kontaan bu baax baax di leen wax na na moon nañ leen. di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo à chaque fois comme ni ñu koy defee. ñi nga xamante ni caab di leen féete ginnaaw. ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpital yi. surtout waa campénal sama jabar yi fa nekk yàlla na leen yàlla bàyyi ba ñu génn. ñu mën a ànd ak ñoom def ay lundam yéen ñëpp. di leen wax nag tey nag wax dëgg fa yàlla tey hors du jour ñépp xam nañ ko. Mhm. mu nekk jour de mhm. wax kat yi nga xamante ni dañoo jëndoon ay jour ñëw di ñu menacé. Mhm. naan ñu jënd nañ Mbappé. tey dañ leen di rey. dañ leen di championnat ba commencé nga gis leen ñu commencé faqastalu di Lac de Guiers di nii lekk. li yaakaar naa la def li yaakaar naa la def tey wala. bërki démb waaw. waaw Pape Jean moom ma ko yónnee. du tey suba la. suba waaw sa dimanche 15h grand maye waaw grand maye. 15h waaw boobu tamit maye fa bu fekkee. Pape Jean après ma yónnee ko Tata Eva. dinaa ñëw bu Barça <laughs> gagné wul nag damay feebar. <laughs> yàlla baax na loolu ko ñëpp xam. yàlla baax na voilà voilà. ayca bi nga noonu naa ko yàlla may ndam yàlla na yàlla na leen yàlla may ndam bi mën naa nekk fépp a nul sax mu neex waaye en tout cas mhm. euh, nii lañ ko mënoon démarrer pour ñi nga xamante ne nee naa la tantôt ñooy catalan yi wala merengue yi euh, ñu teel a prévoir seen bopp rek te xam ne match bi tey du yomb mhm. et c'est ça qui fait le charme mhm. euh, am na sax jigéen seetaan match mais man damaa bàyyi seetaan match bàyyi seetaan basket seetaan lamb bàyyi dañu daal <laughs> damaa bëgg waa Pikine ñu jàppale ñu ah waa Pikine suñu mbër yi nekk Pikine xam nga man Pikine dama koo fonk dafa falaa juddoo dafa métti damaa bëgg ñu jàpp ci c'est benn mbër rek jàpp waa Pikine yëpp di def ngi lay nuyu Ama Baldé ngi lay nuyu Boy Niang ñu ngi lay nuyu waaye leen daal yokku leen lu ngeen def benn daal def leen ko diis ndax ñun Pikine dañoo mën a waaw waaw waaw yal min bi bëgg naa loolu

macha allah ayca dañuy daal di jublu ci ki nga xamante ni mooy euh, bijouterie la solution Grazelia nee naa leen bu ngeen bëggee diamant wala or mhm. wala lépp loo xamante ne lu baax la di jëm ci góor wala ci jigéen ay montre lépp lu ngeen bëgg rek incha allah bu ngeen daal di demee ba fi nga xamante ne mooy Sacré Cœur 3 boulangerie jaune bi euh, ci wetu mosquée bi donc euh, SDE bi waaw vers la mosquée di ngeen mën a am li nga xamante ne mooy seen i bijoux en or parce que nee nañ seen slogan mooy une femme une boîte en or et loolu man gëm naa ne lu mën a nekk la une femme une boîte en or ka nga dajale condamné ba am ko wala ku mel ni Toch euh, yëg ni Samira day anniversaire rek <laughs> wala Eva sax ah pourquoi pas bientôt ñu daal di la koy defal coffret rek daal di la koy jox mën naa nekk waaye ton bi yow moom fan yi doo laal dara hmm. tonton bi fan yi moom yaa ngi def <laughs> ayca mi ngi noonu dañ leen di daal di jox numéro ñi nga xamante ne ñooy bijouterie la solution à tout moment aussi mën ngeen dem foofu euh, jënd fa seen i waaye aussi bu ngeen euh, wootee fi nga xamante ne mooy le grand maillet incha allah avec euh, Toch ak mm-hmm. Tata Mado ma sista Mado sa la la la plus belle suñu ndax ndax bi mais Mado dafa gën a belli yow eh, Mado eh, dafa upgrade glow up ëpp law moom mooy la millième eh, ay saa <laughs> yi Mado lii di ci tontu waaw ba pare taayu Mado du ci wax. dagg Mado. gis nga loolu coupe bi day dem sax. ayca yàlla baax na te boo ko nee wàccal si suuf elle a grandi boo ko nee wàccal si suuf day wàcc ba suuf daan Zembere mbool dagg yaramam. Mado day dagg yaramam. yàlla baax na ayca woote leen ci euh, pour bijouterie la solution 77 554 58 62 wala 78 388 61 61 wala 77 720 27 27 wala 78 153 53 ñi nga xamante ni aussi ñooy waa Ombilico Meuble nee naa leen pour ay chambre à coucher. Euh, toche moo xam chambre à coucher wala li nga xamante ne aussi mooy ay meuble pour sa mm. salon euh, bépp matière boo bëgg rek incha allah boo demee fële stade Demba Diop en face stade Demba Diop di découvrir li nga xamante ne mooy ombilico meuble di nga am large gamme large choix nga mën a choisir jël sa temps temp temp est-ce xam nga ne man tapissier laa ah yàlla baax dama xam fauteuil xam qualité yi ciy nekk waaw kon bu ñu demee ombilico man maa dem laal tissu bi ok kon laal nga ko. xool éponge yi xool bant yi ko daajee xool sàng li xool xool col bi ñu utilisé. nga xam ne bu baax bi la nga xam ne ñii ëpp la yàlla baax na ayca 77 519 18 04 wala 77 762 37 47 man kii dina ma rey barki yàlla waaye aussi ñi nga xamante ne ñooy waa Kabirex nee naa la lépp lu ngeen bëgg ci téléphone bu baax téléphone de marque. Mm-hmm. whatever marque téléphone bu ngeen bëgg rek incha allah wala li nga xamante ne mooy seen micro ondes wala seen i cinq feux euh, nu mu tudd lépp lu ngeen bëgg rek ci ay euh, téléphone euh, wala li nga xamante ne mooy téléviseur smart TV mën ngeen dem ci Kabirex incha allah bu ngeen bu ko defee ngeen daal di am ay Samsung wala Sony wala yeneen marque yoo xamante bëgg ngeen ko mm-hmm. ñu daal di leen koy defal waaye aussi bu ngeen wootee dimanche grand maye di ngeen am possibilité am yi yëpp xéwal yi yëpp ma joxe seen numéro waa Kabirex mën ngeen wootee seen service commercial 77 800 00 30 wala ngeen euh, dem seen site internet www.kabirex.kabirex.com www.kabirex.com mm-hmm. donc am nañ Sacré-Cœur 3 am nañ xamante ne mooy Kaolack am nañ fi nga xamante ne aussi mooy Kër Massar ñooñu ñooy ñi nga

ngeen bëgg nag ñu mu wax ak yéen rek incha allah moo xam muy Adja wala Choupa wala ki nga xamante ne moom kenn xamul madrilien la kenn xamul catalan la wala ki nga xamante ne mooy Amadou incha allah di ngeen participer ci émission bi léegi nag tonton vieux dañu bëgg nga dem may très rapidement bien vrai qu'on pas démarré à l'heure exacte mais dañu bëgg consommer benn way boo xamante ne age de bes la ak Amadeus Amadeus waxtu wi son bu neex ñu enjoy ko ñëwaat waxtu wi ndekete yooyu waxtu yee ñu boole woon du xaritoo kese ndekete yoo waxtu wee taxoon ñu daan daje boor bu ne woo nga ma ci guddi gi fekk na malaas ca ëllëg tamit fii ci suba si fekk na waxtu wi su weesoo dootul ñëwaat doo ko balaa dellu suwaat ne ci beneen bés bu jant bi di saw fii fële di naaj bu guddi gi di xaar fii timis di waaj fee Masamba ma nga waalo suba solo yaa ko yóbbu Ndakaaru te ëllëg dugal mun na xandaalo fii ak ay bët nga ko sancuwaalo ndeke waxtu yi ñoo ñu boole ñoom ñoo ñu boole du xaritoo kese ñoom boole ndax bu ëllëgee mën nañu ji walloo waxtu yi saa yu waxtu woowu woote ne waxtu wi wu jootee bu dul sa bës tam sa bës a na du xaar suba ndax yàkkamti na démb weesu naa mu sàkk gaaye moo ñu dajale ci àdduna bi ci waxtu ji ni mel tey mara naan maru naan naan noppatu ndaala ndox maa ngay walangaan ñun bu ñu réeroo ndox maa ngay walangaan ñun bu ñu réeroo te amaana bu ñu diisoo dinañu déggoo di ba njiréeroo bu ñuy déggoo di ba njiréeroo bi def si ndam su ko soobee bu ñu booloo ma benn affaire fii ak allah loo ma ñaan ma may la ko ndax son bi dama ko enjoy enjoy ko enjoy ko ba ñoom ñu def ko clip. dafa mel ni dañu seetlu woon ni que am na ay fans yoo xamante ni dañ doon enjoy clip bi ba ñu ne nag dañuy décider euh, scénariser clip bi non seulement nga gis kii nekk fii ki nekk fee waaye loolu euh, damay bañ ñu lekk temps bi rek moo tax xam naa duñ ci mën a buruxlu euh, yooyu yëpp du fi mën a nekk donc dañuy daal di jàll très rapidement ci ki nga xamante ni mooy Adja parce que nee na les bienfaits de manger ensemble le dressage au sol la démonstration à l'appui lii moom lu ne lu ne fàng kenn du ko jeex lii mooy Soupa bu jugoon wala tos toog nii rek. Mhm. wan gars yi nu ñuy toogee ci suuf rek. avec plaisir xam nga waaw bu leen sàqami nag bu leen sàqami. Ah. xam nga lii temps la. couple nii rek xool leen lii man sama ah, commande dafa fort la de manger ensemble monsieur madame et les enfants yaakaar monsieur madame et les enfants waaw papa yaay bi waaw tu es l'enfant léegi yéen da ngeen di da ngeen di def démonstration Adja di waxaale mu mel damay doog ñëw ah léegi dañuy def théâtre mu mel damay doog ñëw fii du Marodi de fii du event pro waaw wala Amadou l'enfant mon amour ça va yàlla ndekki bi pare na dama xaw sûr. xaaral romb leen nag. eh law gàtt eh law ma bébé si misa daal yi s'il te plaît. bu fàttee man maay sa papa. Mmh. Oh, mais toi à l'aise. zoom yi wula. fii ngay toog fii chef de famille bi fii ngay toog. léegi yéen dee leen kii rek. Eh, zoom farankulaayu. dee leen wax rek dee dee leen dee def rek. xam ça euh, Adja nga waxaale ñu. donc le euh, pourquoi c'est magnifique li ma indi tey c'est les bienfaits. de uh-huh. manger ensemble. Uh-huh. parce que lekkandoo da ngeen di noppi nag. dafa tax micro sax te yëgul li muy def. waaw ah, micro yaa ngi ko. donc euh, li ma la mën a wax daal mooy li ma indi tey mooy njariñu uh-huh. lekkandoo ensemble. waaw dafa nekk loo xamante ni dafa important ci famille. dëgg la day suude famille. ah da ngeen war a toog euh, lekkandoo. day baax ci éducation wu xale yi. xam nga doo leen toogee nii tey tegandoo ndékki. Mm-hmm. dina indi benn regroupement familial boo xamante ni ça tisse les liens familiaux. xam nga ba nga xamante ni da ngay gis sa doom yenn comportement yi nga xamante ni sax seetlu woo ko ci woon seetlu woo ko. c'est mm-hmm. des moments yoo xamante ni di nga ko seetlu. di ko di ko rectifier en même temps heure añ du jotee. heure añ bu jotee nga war a toog ak sa njaboot am na xale yoo xam ne déjà du ñu lekk légume duñu def lii dañuy dañuy dañuy manqué ay dañuy manqué richesse ci liggéey ci en nutriments et tout ça donc c'est important nga toogandoog sa njaboot ngeen toog préparer leen ay ay lipides ay glucides tous les sels minéraux lépp li nga xamante ni c'est important pour la santé de l'enfant en général si xale day seet lu ko neex rek mu lekk ba pare suñu doomi léegi doo xoolee seen alimentation bëggatuñoo toog ah, waaw ce soit su ça ça soit en bas ou ça soit euh, sur la table fexe leen dans la semaine parce que léeg-léeg day nekk moment boo xamante ni c'est le plus facile mhm. ñu koy defandoo donc le week en général dina baax nga toogandoog seen njaboot waxtaan échangé mhm. en famille xam nga mhm. sa doom ni ngi xale boo xamante ni mënu sax lekkee loxo mun nga ko jàngal ne ko nii la ñuy lekkee du ñuy du ñuy du ñuy nu muy jëlee rënd beeg yooyu xam nga ñun bu njëkk yaru mag yi dañu daan xool si bët rek mhm. di nga xam loo war a laal ak loo warul laal léegi loolu amatul mhm. xale bi nga xamante ni sax day lekkee kudd aussi il faut pas frapper en général sa sa bo sa kudd bi si bool bi warul def bruit waaw euh, kan njëkk a def bi wax ni mhm. bu njëkk du ànd ak pour xale. ay loolu loolu loolu loolu pour la. voilà waaw tudd bu njëkk loo na commencement nag. waaw loo gis rek am na commencement da ngay commencé goûter rek. tibb bu njëkk du ànd ak ndawal lan la rek. mën na ànd ak pataas mën na ànd ak carotte mën nga ànd ak lépp may nañ la ko mais ndawal moom du ànd ak kudd bu njëkk bi. waaw loolu ma jaaxal nag loolu moom am loolu moom am na mais il faut nga déguster xam nga yi teg ah, ne loolu kese la. mu nekk mu nekk lu ah, nice lu am importance nekk en famille uh-huh. ne serait resque que une fois ou deux fois dans la semaine wala reerandoo en famille nga xool say njaboot uh-huh. rectifier communiquer di nga gis ay défauts yoo xamante ni sax xale bi du toogee di nga xam ne si ça va ou ça ne si ni muy toogee ni muy comporter ah, waa yow yaay xale yu kër gi amul problème ni nga def nii baax na xam nga waxtaan ak xale yi échanger même dans les grandes familles dina indi juboo xam nga dangay gis famille yoo xamante ni chaque dimanche da gis dañuy regroupé wu dans la grande maison familiale lekkandoo naanandoo da ngay gis ñu nga xamante ni sax da ngay am dispute ci famille yi c'est des moments yoo xamante ni c'est des moments de réconciliation mhm. da ngeen di jiboo xam nga day indi contact euh, échange c'est important lekkandoo dafa am solo waaw te léegi ça tend à disparaître mhm. parce que les gens n'ont plus le temps doo xëyee le matin yaa ngi daw on mange dehors le soir doo wàccee xale yi tëdd nañu mhm. donc il faut essayer dans la semaine de chercher un moment de communiquer avec la famille xam nga si c'est les grandes familles ne serait-ce une fois par mois ou bien mhm. une fois par semaine ñuy regrouper wu c'est des ça tient ça lie les liens familiaux ba nga xamante ni ku si nekk di nga mën a échanger réconcilier les ba pare day dindi stress xam nga waxtaan kaf ree bokkandoo bool tout ça c'est des trucs importants waaw donc je conseil lii dressage au sol la xam nga tout temps dañ naan Adja dafa bëgg affaire tubaab et tout ça mais aussi lii tamit si la bokk doo taayalee teg sa table de temps en temps nga lal si suuf njaboot ji ñëpp toog ba pare ngeen jàngal xale yi ak njaboot yi di leen tegal vaisselle yu rafet. waaw loolu ma si jaaxal doo waxee rek. c'est ça dañuy toppandoo tonton Vieux loolu da ñuy mayaale sax préparer ñu son ay décembre toppandoo parce que boo waxee rek ñu ne tubaab bi la ñuy toppandoo léegi nag lu mel nii lu mel nii bu ko kenn dencal bu ko kenn dencal ay gan mhm. donc tàmmal leen seen njaboot mhm. vaisselle bu rafet tàmmal seen njaboot dressage bu rafet parce que xale lu mu jàng rek loolu lay tar ba nga xamante fu mu dem rek moom lay yóbbaale loolu laa wax ayca mu ngi noonu li mu wax am na solo waaye toos li muy kaas tamit kër goo dem fekk ko fa man mi sama yaay loolu daal loolu la ko mairie def loolu ñëpp ñëpp sama yaay kon lu moom kese moom mooy def li jënd ay kaasam yu rafet meuble ko teg ko ci kii bi bibliothèque bi la ñu def ñun ñii kër ko ba pare sax ndax wax dëgg neex yàlla. Mhm. Samira lii nii dafa ànd ak dafa ànd ak jamono te mhm. na. taaru na. Mhm. xam nga ba pare boo xoolee lii nii dressage bi rek sa te donne envie de manger. da nga nekk à l'aise gis nga voilà lii nii xam nga ne looy bañ ndékki ndékki ndékki ndékki. bu ñu déggee lii nga ndékki. da mooy dressage au naa dressage au ciel. Eh, eh, eh, boo xam ni ci diggante asamaan si ak nuance léegi wax nga ne mën nga ko émission bi jeexee ñu taxaw fee dem def suñu laay xoola aboo nam lay reetaane retage <laughs> biir àjjana ñu mën def ay laab muy naaw naan <laughs> dinaa wax suñu directeur kii Adja amuñu fayam ndax keroog laay wax ci ay kaf rek mu réaliser ko nii c'est c'est magnifique c'est fantastique prenez exemple sur ça mm-hmm. pour yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen euh, neexal seen waa kër que muy mm-hmm. sa jëkkër que muy njaboot bi yëpp toute une famille comme elle l'a si bien dit tantôt mm-hmm. ngeen daal di def seen message au lit au sol am na yeneen façon yoo xamante ne aussi ci table et tout ça mhm. donc Adja wan na leen vraiment astuce yi nga xamante ne nii ngeen ko mën a defee wala nii te xoolal ni mu ko defee c'est avec les les moyens du bord c'est avec un b.a.-ba au du du lu extraordinaire lii boo ko bëggee boo contacter Adja mu Serigne Fallou allah dala koy jaay ci à des prix j'imagine très abordable mhm. waaye bu ñu jógee ci loolu tantôt vie dañuy daal di may euh, clé bu euh, nu tudd ay décembre bi le temps ñu dalal euh, suñu benn gan boo xamante ne WKD la affaire bi tudd bi WKD ñii ñu daal di leen di yëkkati xool toppandoo dalal gan gi ay ci let's go pare woo oo oh, mënuñu tolloo ni baram yi sa loxo merci beaucoup pour cette très belle vidéo de Aïda Samb toppandoo euh, vraiment euh, li ñu wax keroog rek nee naa leen euh, c'est magnifique et mën ngeen ko consommer ci bu ngeen demee ci page YouTube wala Instagram wala Facebook pour am les liens pour mën a xool li nga xamante ni mooy les nouveaux projet de Aïda Samb ndax elle fait son bonhomme de chemin macha allah xam naa dinañ ko jéem a invité fi nga xamante ne mooy week-end start peut-être week-end prochain. Euh, parce que semaine passée gis ngeen ci semaine bi que demoon na seeti suñu frère Alaaji Pape Cheikh Diallo donc euh, dañuy daal di plaisir dalal euh, suñu gan nga xamante ne Nasser la tudd il sonal teewal fi ñi nga xamante ne ñooy waa WKD wala WKD Alianza moom dinañu wax ban la ci ak nan la ci bonjour à toi bonjour merci beaucoup Nakiria donc mooy wax daje. Mm. mais aussi mais aussi si français weekend weekend ah. alianza alianza alliance alianza si si portugais mm. maanaam un regroupement de personnes ci uh-huh. benn week-end pour festoyer ensemble autour des musiques lusophones kizomba ak samba musique et danse waaw week-end ñaari week-end ñaari week-end weekend alliance. ak weekend stars neex na ba noppi. ay mu nekk benn événement boo xamante ne pour ñi ko xamagul wala pour ñi miinagul événement bi euh, soo ñu mënee wax euh, comment ça va se passer parce que maa ngi gis si événement bi que le premier le 2 ak le 3 novembre euh, ngeen ko fas yéene amal fii Sénégal. donc c' est la deuxième édition. daaw defoon nañ ko tamit mais cette fois ci décembre. mais balaa may commencer naa introduire organisateurs yi. donc man la bokk <laughs> évidemment on est ah. d'accord ak sama benn collègue bu ñu naan Miguel. Mhm. et ensuite am nañu fii grosse base Sénégal école école jeune Kizomba Club. Mhm. donc ñoom ñoo yor école de danse fi Dakar c'est qui forment les jeunes école bi a été créé depuis 2011. Mhm. donc ils ils sont dans les dans les cours les soirées les workshops. donc ñun on a décidé que Dakar mooy doon par rapport à proximité Cap-Vert ak Guinée-Bissau. dafa bëri ñaañu dafa bëri lusophone. dafa bëri ambiance donc on s'est dit Dakar dafa être un plateau tous les passionnés vont se retrouver. Donc là, on a aujourd'hui des gens qui viennent de partout, de New York, des États-Unis, de l'Europe. Voilà, je pas. Euh, après c'est mieux, Donc je disais que c'est un regroupement nga xamante mm. bitim réew di ñëw Sénégal def visite excursion profité waale xoolu Sénégal si Kizomba Simba donc il y aura des cours il mm-hmm. y aura des soirées et il y des excursions et des DJ internationaux mm-hmm.

culturelle bu indi Kizomba. Simba c'est originaire de l'Angola. Ah. Angola voilà comme c'est aussi un pays lusophone c'est eux qui sont à l'origine de la danse et de la musique Simba. Donc euh, à l'époque coloniale danse de dénonciation la parce qu'à la base danse individuelle la Mais quand ils ont vu Colomb et avec cette position de danse de salon, ils ont décidé de créer le... danse parce qu'il y a des danses traditionnelles, il y a des danses traditionnelles qui ont influencé le semba. Mhm. parce qu'ils avaient, ils leur manière de danser. Exactement, tout ça. exactement. a donné le semba en danse de couple. Et ensuite ils ont. Semba. Semba la wax wala man pour man wax. voilà ça dépend na Semba Angola am na Samba Brésil. mais c'est la même chose partie-là de l'Afrique. ñu naan royaume du Congo lañ jël yóbbu côté boobu. donc c'est quelque part donc danse traditionnelle angolaise moo joxe Semba danse de coupe. Mhm. Semba joxe Kizomba Kizomba dafa jël yenn influence comme le zouk ou les autres danses pour créer Kizomba. donc effectivement moo tax Cap-Verdien tamit on a de grands mënoon a du ma mënoon ñëw euh, ko mm-hmm. qu'est-ce ma jàngal <laughs> parce que dama nekk loo xam temps la boo xamante ni ah, ko kon laa war a mën a def pour ñëw adhérer si yéen bokk si yéen te dégg naa ci ay waxam mu ne dañuy joxaale ay cours non. ah waaw cours yi loolu wax feeñ ay plaisir effectivement le samedi et le dimanche c'est que des cours donc ce programme bi ça commence vendredi à 14h enfin vendredi à 22h pardon au Boma Boma Lifestyle Hotel Boma ex Charlie Sunugal soirée bi de 22h à 4h et le lendemain à partir de 13h on commence par les cours. Uh -huh. donc dina Semba mais aussi Alianza comme on l'indique alliance culturelle on a des amis qui viennent de Côte d'Ivoire dina cours coupé décalé tamit. dina ah. cours mbalax tamit. donc ndox nga ma le samedi et le dimanche. Mhm. voilà dinañ mën a faj sa soxla incha allah. <laughs> ñun bu ñu mënoon am ay cours fii nii en direct sax après dañuy jël après man ak euh, Soupa bu ñu jëlee voilà nga waroon quelque part danse une deux trois rotation après arrière. waaw yow kay mën nga ba pare sa terme yi dañoo technique yow kay mën nga ba pare. contourné naa ko ni <laughs> waaw léegi par exemple ku bëgg a ñëw adhérer ci ci bi femme inscription. Mhm. dafa mensualité. Mhm. exactement l'école Jeune Kizomba ñoom am nañ seen comme je l'ai dit depuis 2011. donc ils ont des mensualités donc euh, am nañ page Instagram.

D'accord. Les sept cours plus une conférence débat, parce que ce que j'oublie de dire, c'est qu'on a une conférence qui va expliquer. Le programme, si on peut savoir, même le programme du premier, Exactement, Donc, le vendredi, on a la soirée d'ouverture. Mm -hmm. Samedi, on a quatre cours, mm -hmm. suivis d'une sociale mm-hmm. et d'une soirée aussi cette fois-ci. Et dimanche, la soirée du samedi, cette fois-ci, on le fait au 13 Flamingos, mm-hmm. pour changer. Et ensuite, dimanche, on revient au Boma et cours, et ensuite une autre soirée. Uh -huh. Et on finit par une, euh, le dimanche après-midi avec une, sociale, enfin, une conférence débat qui permet d'expliquer un peu l'origine de la danse. Nous, nous Sénégal, nous uh-huh. sommes Sénégal, nous sommes Boy Kapsi, nous sommes Kizomba. Parce que réputation Boboula, Kizomba, mon côté Karak, Kapsi, uh-huh. le côté Boboula. Donc voilà, nous sommes nous Dougé, donc tous ces éléments. ah ku dem mu ngi ñëw de. ah mën ngeen exactement qui habitent là-bas côté Baobab aussi exactement Baobab nga xam dafa bëri ay Cap-Verdiens ñoom dañoo bëgg ay xeetu fecc yooyu mhm. man dama koy jàngi man ah. non baax na pour jàng ko sax parce que beneen fecc la boo xamante ne du mbalax comme ni nga xamee ne ivoirien yi ñu ngi jéem a jàng mbalax donte mënuñu ko mais kizomba semba yooyu yëpp baax na pour ñun tamit ñu jàng ko mais lan nga ñu mën a wax na Nasser pour téléspectateur bi nga xamante ne mi ngi lay seetaan am na envie vraiment ñëw euh, soit le premier soit le deux wala le trois

pour vraiment Sénégal am meilleure visibilité autour du monde parce que loolu c'est ça Sénégal mooy dalal ñëpp pour wane suñu teranga ci Kizomba incha allah c'est le pays de la teranga c'est ça léegi euh, sa sa Nasser bi Nasser El Khelaïfi bu président kii nu mu tuddati directeur sportif bu Paris Saint-Germain lañ la tuddee wala bu fekkee sa trondoo nga balaa ngaa dem di nga bàyyi ci enveloppe bi fii nii dara <laughs> ñàkk mhm. xam naa Nasser El Khelaïfi naa ni euh, c'est un saoudien boo xamante ni c'est un multimilliardaire wax rek bu làqatu mhm. wax ñu soit pas humble bu dee sa trondoo wax parce que man benn nit laa xam tudd Nasser Thiam àdduna yow yaay deuxième bi. j'aurais bien aimé nekk turandoom. wax dëgg ah. yàlla parce que wax dëgg yàlla sponsor bi xam nga nii. mënu mais non malheureusement. <laughs> nekkuma ko ma ah. boo yoree éclairé nga wax ma. ñoom da ngay seetaan football bu baax. parisien la ak beneen club euh, mag mag ngay naan. Euh, Euh, Espagne mais du ma wax tur bi. Vizca Barça et Vizca Catalunya. xëy na bàyyi ba émission bi jeex na la wax instant fi mu toll nii moom bëgguma yàq sama week-end Alliance sax. yaa xam moom bu la ko dara jaral comme ci promotion bi nga. waaw ah, mi ngi noonu comme ci promotion euh, WKD lañ nekk. Mm-hmm. donc bu la ko dara jaral et puis euh, les gens sont intéressés certainement. Mm-hmm. pour mën a xam et tout ça naka lay demee jour bi comme ni mu ko waxee tantôt le premier le 2 ak le 3 novembre je préfère man tamit ngeen ñëw ci ñetti dates yëpp pour découvrir ce qui est la danse ce qui est les sorties excursions wala li nga. xamante ni mooy des soirées comme ni mu ko waxee tantôt parce que ça a l'air intéressant man su ngeen ma invité j'aimerais bien venir quand même ah. avec avec ma team ah. on a des témoins ça y on a des témoins. kii xam na ma de. <laughs> kii xam na ma de Nasser xam na ma de wax. nee na on a des témoins. c'est enregistré le kan daal message daal ah. et bu ñëwul tanaax indi lu ñuy fecc ci Kizomba. man eh, déjà déjà tant que yàlla danse <laughs> danse rek moi. naa la Kizomba lu neex. man su amee fecc rek dina ma neex parce que fecc décompresser la c'est une manière de décompresser et de de de faire des rencontres d'avoir des contacts avec d'être en link avec des autres personnes et tout tu vois. initiative boobu ñu am rek c'est quelque chose de magnifique et de fantastique ñu leen ciy souhaiter aussi succès total. Mm-hmm. par rapport à ça mais euh, comme tu l'as dit tantôt ou comme vous l'avez dit tantôt bu ñu soxlaa seen numéro pour.

Aïcha ñu ngi lay remercier bu baax a baax plaisir la ñu am euh, vraiment waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy événement te événement Sénégal la euh, kontaan nañ ci bu baax et ma team aussi kontaan nañ ci Choupa euh, bu fekkee da am benn laaj boo koy laaj rek xam nga yow da nga bëgg ambiance <laughs> am na moom day topp ambiance <laughs> am na am na mbalax kizomba rek. am na mbalax waaw kizomba da nga ko mën a. Sénégal lañ nekk rek waaw ah, dëgg dëgg. Ah, ah, baara mbay bu saf saf. parce que keroog mbalax bi sunu yaay ji sunu sunu sunu sunu sunu grande sœur bi. dafay mhm. génne benn benn fecc bu bees. fecc bu bees kan moo génne fecc bu bees. Adja boo toogee di ko def nii rek dafay yomb. est exemple yéen en tant que euh, kii. est-ce que mën na mën na leen arrivé créer ay pas de danse yoo xam ne yéen yéen a ko génneel seen bopp quoi mhm. lu bëri lu bëri waaw mais il faut qu'on reste dans une certaine parce que danse bi day mel nii boo créé benn pas bu ëpp danse nekkatul danse mais mhm. effectivement oui danse kay créativité da ci artistique donc effectivement loolu mooy clé la yow kay laal nga ko loolu mooy clé danse comme booy ni ñu mbalax mi nii ñoom mbàcc ñoom njàpp indi ci lii ay

depuis. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et merci pour euh, le partage. On est ensemble. Merci beaucoup Nasser. Restel ak ñun ñu daal di seeti ki nga xamante ni mooy la diva à la voix d'or. Coumba Gawlo Seck nee na. on apprécie vraiment euh, Toch ci kanam tuuti nag dama bëgg nga xam ne am nañ fi gan yoo xamante ne aussi ñoom dañuy yëngu ci li nga xamante ni mooy ah, macha allah événement la aussi ñu koy wax Galsen Gospel Urbain. Et je pense que bi mooy seen deuxième saison mais avant toute chose honneur aux dames bonjour à Vous allez bien Oui, bien, merci. Vous êtes de quelle nationalité Congolaise. Waouh c'est l'Afrique. On vous laisse le soin de saluer les téléspectateurs et les Congolais qui vous regardent. <laughs> Alors, euh, bonjour chers téléspectateurs. la caméra est là, juste là. Ok. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, je suis Béni Merveille.

tout ce qui est artistique, comment le festival doit se diriger, la grande direction du festival. Donc, mhm. c'est ça mon rôle. C'est ça votre rôle. On va tout de suite euh, développer ça. Euh, bonjour à vous. Ah, bonjour. Et vous, euh, vous êtes, de quelle nationalité Je suis gabonais sénégalais. Gabonais sénégalais. parce que j'ai entendu Fall. il, a dit Fall. J'ai ah, le Fall, là, c'est pas. C'est sénégalais, ou bien mauritanien. Gabonais, Congolais et un Sénégalais. C'est mhm. son c'est son nom de famille. C'est nom de famille. Oui. C'est c'est Fall bu yàlla faale c'est ça. Aïcha ah, na nga def. bonjour tout le monde maa ngi fi. yaa ngi yaa ngi ci jàmm foog ñu njar ko nag non nest pas. maa ngi c'est Andrew 3x7. artiste là je suis sénégalais. Mhm. Euh, je fais partie des artistes qui sont. invité au Galsen Gospel Urbain 2. Uh-huh. Euh, mais bon sénégalais là quoi fii laa màggee et tout tu vois. Uh-huh. c'est ça kon nag tey di nga xolof. tey naa xolof waaw wolof laay wax. waa Régis bu ngeen ñu mënee may li nga xamante ni mooy seen euh, xew-xew bi am euh, ñu koy wax Galsen Gospel Urbain euh, deuxième saison alors j'ai vu pas mal de personnes ici ñuy wax ni que événement la boo xamante ne dañ koy waajal le 3 octobre de 2024 à partir de pardon.

euh, partager cet événement ensemble. Mm -hmm. Et donc s'enjailler, se mouvoir ensemble, s'ambiancer ensemble. Mhm. Et pour l'invitation, ça se passe comment pour les artistes qui, veulent Peut-être qui vous regardent et qui veulent être invités Ça oui. se passe comment Oui. Alors pour les artistes, déjà pour euh, cette euh, saison, en fait, c'est déjà bouclé. Ah, vous avez déjà sélectionné les artistes ont la possibilité de contacter le directeur artistique mhm. pour s'inscrire et après on pourra les programmer pour l'événement euh, prochain. Mhm. comment se passe la sélection pour les artistes D'accord, la sélection se passe en fonction de Houston. Déjà nous sommes dans l'urbain. L'urbain c'est tout ce qui tourne autour de la rue. Uh mhm. -huh. Donc les différents styles musicaux que l'on retrouve dans la rue, on a le rap, le slam, la danse et tout ce qui tourne autour de ça. Donc nous à la direction artistique, on s'occupe de sélectionner des jeunes talents qui ne sont pas connus ou qui sont déjà connus mais qui n'ont pas une grande visibilité et on les fait rentrer dans les différentes catégories mmh. sur une audition. Une audition qui essaie d'évaluer le potentiel mmh. et la possibilité pour ces jeunes artistes de pouvoir produire un spectacle de qualité pour le festival. Mmh. Donc c'est plus ou moins comme ça. à, à propos de cette organisation. Vous voulez atteindre quelque chose et tout ça. Mhm. Nous avons un thème mhm. et le thème c'est Ne méprise pas ta jeunesse. que je voulais demander. Pourquoi avoir choisi ce thème Parce que nous voulons que les jeunes soient acteurs de leur jeunesse. Mhm. Aujourd'hui, on est là, on se dit, nous on est dans la rue parce qu'on va parler dans, la rue. On se dit, on n'a pas d'avenir, on n'a pas, assez de moyens, on est désespéré. Mais si on crée un collectif, on peut être fort. Et si on est ensemble, on peut être fort. On peut créer un cadre sain où tout le monde pourra s'épanouir, où tout le monde pourra trouver une place sous le soleil. Et c'est ça l'objectif vraiment du festival, c'est prendre tous les jeunes qui sont dans l'urbain et de offrir une plateforme où ils pourront s'épanouir, où ils pourront euh, vulgariser ce qu'ils font dans un cadre et se vendre à l'international. Mhm. C'est ça l'objectif, vivre de leur passion aussi. donc c'est ça les groupes que hmm. des groupes que vous allez conserver. Euh, pour les accompagner pour objectif pour atteindre votre leur objectif. D'accord. Donc le festival c'est c'est par saison. Donc l'équipe qui est là pour cette deuxième édition, oui. eux ils sont encadrés pendant tout le processus jusqu'à l'événement. Après on les met en lumière et ensuite il y aura un échange avec des des promoteurs du ah, spectacle, d'accord, des anciens, des aînés dans l'urbain dans le gospel urbain, donc qui seront là pour échanger avec ces jeunes. Et pourquoi ne pas recruter certains dans, les labels et les vendre Absolument, je crois. Oui, oui, bah, j'ai aujourd'hui, vous avez rendez-vous à, à 16h. Euh, c'est le programme pour c'est le freestyle. Okay. comme on dit, freestyle, on va se déplacer euh, dans différents lieux mhm. et on va aller vers la jeunesse pour échanger avec les mots qu'ils comprennent. Mhm. Donc le rap, mhm. euh, la danse urbaine, faire des, échanges, parler, parce que lorsqu'on danse, on communique quelque chose. Donc ce sera un moyen pour nous de parler avec cette jeunesse et de les convier au festival, mhm. afin qu'ils puissent voir la plateforme qu'on veut les offrir. Mhm. donc c'est ça. Aïcha dañuy daal di euh, mbas tuuti rek daal di dugg ci olof bi parce que sànq avant ngeen di ñëw dafa dégg ma ni Galsen euh, gospel urbain mu ne oh moom dafa bëgg gospel. certainement mën nga ko si may tuuti nag loo xamante ne dina dinañu bégal en attendant ñu yegg ci date bi c'est bien possible. mën naa leen mhm. benn freestyle bu Avant c'était ténèbres, maintenant j'ai la lumière, comme si ma vie avait deux faces. Je me vois comme une pierre épurée par le feu, je suis passé dedans plus ces deux phases. Maintenant que j'ai Christ, maintenant que j'ai la vie, mes anciennes actions s'effacent. Je me sens grave nouveau, je me vois comme une pierre qui est passée de six mois à s'efface. J'ai envie de voir Dieu, je veux qu'il me révèle ses faces. Je préfère le désert que de mal accompagné, donc j'élimine les gens néfastes. Je me confie peu aux hommes, je réfère mon roi pour qu'il me dise ce que je fasse. Je suis plus dans le piège du diable, je tire plus de taf, je fais plus de passes. Yeah. Ah. waaw donc loolu laa leen mënoon. il a il a du talent ah. c'est pas c'est pas n'importe qui qui est à côté de nous Amadou. kii boo ko xoolee xam ne naanaan la. waaw dëgg la de. Ah, ah, ah, borom mbaa ma xam mbaa moom. dëgg la daanaan a ngi nii. maa ngi koy soog a gis nag waaye nag boo déggee daanaan noppi gar mi laa yor nag. waaw dëgg tamit tamit dëgg. mais ma bëggoon xam nag benn affaire. Mhm. ba xam yëf yi comme je veux que yow Sénégalais nga quoi. mooy bañ a laqay français ñoom Sénégalais. yàlla tere ñoom nampuñu ko yow. ñoom ñoom ñoom nampuñu ko. ndax français ndax français mbër laa yor. ma bëggoon a xam aussi tamit ba xam est-ce que Sénégal kii. waay waay bon pour l' événement yi ça se passe fini Sénégal la pour l' instant. Euh, lu ñu bëgg def mooy euh, faire en sorte que gars yi xam événement bi fii Sénégal d' abord quoi. xam événement bi Dakar bii nii mooy deuxième fois que ñuy def festival bi donc léegi au fur et à mesure plus muy am impact plus ñuy gën a élargir peut-être mën nañu génn dem si région yi et plus tard pourquoi pas génn international tu vois. donc c'est ça quoi. donc instant yii nii ñu ngi si début bi quoi bi mooy deuxième deuxième fois ñuy def festival bi donc dañuy jéem a développé affaire bi ba pare avant di xalaat génn quoi. deuxième question bi moo nekkoon gospel bi ba xam euh, ay sénégalais kese ñu ci nekk wala dafa am ay am na ay artistes de plusieurs nationalités. Mhm. nekkul question de nationalité kese. am na ay sénégalais comme man. c'est l'Afrique euh, quoi tu vois c'est donc c'est le moment moment la boo xamante ni kon ñi fay nekk ci groupe bi nañ préparer am yaakaar te xam ne c'est le moment ñu dénicher leen ñu am chance benn label découvrir leen. ñu am chance benn kenn mën leen contacter. Mhm. pour ñu am ñu am découvrir leen daal xam leen. donc c'est le moment kon ñu ko si nekk war ngaa donner à pour cent. Mhm. pour nga xam ne fii nii mën nañ ma fii laa fii laa mën a jaaree rek réussir ba siiw. kon nag nañ pare. voilà ba pare lu ci gën a neex moom mooy inscription bi gratuite la c'est en ligne da ngeen di mm. scanner code QR baa ngi noonu bu ko defee ngeen mën a participer ci événement bi yéen ñi am ay talent bëgg ko fësal. Mm-hmm. ubbi nañ leen seen porte. te euh, le le 3 novembre fële ca centre culturel Blaise Senghor mm-hmm. wala fa demee rek ngeen daal di wane seen talent pare nañ pour jàppale leen. pare nañ voilà c' nañ euh, saison 2 euh, bi moom malheureusement sélectionné nañ ay nit ba pare mais saison 3 bi da ngeen di teel waajal seen bopp. ngeen dem ci directeur artistique bi bu ko defee ngeen euh, wan ko li nga xamante ni moom ngeen mën ci seen i talent. vous prenez pas des acteurs des actrices par hasard. Euh... nous aussi on a des talents hein. mais la réalité c'est que le festival c'est un festival inclusif. on veut créer un scénario. pour que tous les acteurs de l'urbain se retrouvent. Mm. C'est-à-dire que pour cette édition, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir un si large, une si large palette d'artistes, ah, aussi à cause du temps. Mm. Mais pour les prochaines éditions, je pense qu'on doit créer un scénario parce que c'est vendre les artistes. C'est pas vendre un seul artiste. Ah, oui. Donc on veut créer un scénario, c'est mm. un festival. et on doit s'amuser, on doit déterminer la manière avec laquelle on s'amuse. Effectivement. Voilà. La musique, c'est de l'art, la danse aussi, mais aussi le cinéma, voilà. tout, tout, tout euh, se regroupe euh, dans l'art. Euh, on vous laisse juste le soin de préciser exactement pour le 3, pour les euh, gens qui vont venir, à quoi ils vont s'attendre exactement pour la journée du 3. Parce que j'ai vu tout à l'heure un battle de danse et un battle de, de, de, de je sais pas, de flamme, de slam. Voilà, donc après, les gens seront récompensés ou c'est juste pour euh, les accompagner et les présenter à des promoteurs et tout ça, à des producteurs Donc, normalement, avant euh, le jour du festival, on a, euh, on a lancé un jeu concours des, des artistes euh, en herbe. D'accord. Euh, une cagnotte de une production de 500 000. Ah. C'est-à-dire que celui qui sera retenu, mhm. il va bénéficier d'une production de 500 000 vidéos, Euh, studio et tout l'accompagnement qui sera derrière. Uh-huh. Et euh, ils, auront aussi l'occasion de passer sur le festival uh-huh. le, le, uh-huh. Donc il y a aussi ça. pour le jour de festival, euh, ce sera plus ou moins en deux phases. Une première phase où on vraiment exprimer comment la rencontre avec le gospel urbain, qui sera en forme de rap, euh, de slam, de danse. Et dans la deuxième phase, ce sera un moment plus ou moins festif. Mm -hmm. euh, là, on va se réjouir, mais toujours dans, dans, dans la, la, même forme. Mais il y aura un scénario qui sera bien adapté.

vivez l'événement avec nous et ne vous le faites pas raconter. Et aussi, j'aimerais inviter tout le monde à aussi... Euh,

88 06 88 676 05 05 88 628 65 65 88 628 20 20 88 628 22 22 ngeen daal di dugg ñu daal di leen di jox seen i enveloppe ndax yéen a moom ñun moomuñu ko dañ leen daal di tegal rek tout simplement ngeen mën a euh, barkelu ci li nga xamante ne teraanga Sénégal euh, moo waa GFM ñoo leen ko jox ak seen i sur ce aussi euh, tonton Vieux dañuy daal di jàll aussi ci li nga xamante ne mooy les événements euh, du week-end avec euh, Choupa ñu xool tey fan mooy jax fan mooy neex mm-hmm. si c'est bon tonton vieux on est bon Aïcha euh, yow tu es bon Choupa très bien kon allons Choupa Evans Choupa Evans wala lii la <laughs> yéen ni ngeen def te tàngoo ne jàpp ko di ko fecciloo ndeysaan mu nangu ba dee xam nga nag suñu système bi dafa active nag elle est très active. waaw waaw bañ ko dalee wax ba tey maa xaw a dañ maa gës yàqu ma très bien ça moom moo jëlee démb doon def na sama yaay. waaye sama xel ci yow rek la doon sama yaay sell ak sama jigéen Choupa. dëgg la ndax rek comme ngeen am jàmm bu euh, su baaxee rek euh, comme Choupa daf ñu doon servir ñu rafraîchir wu eh, désaltéré wu. désaltéré wu teel dama ko wax ñibbi euh, sama benn xarit woo ma naan ma lan mooy désaltéré wu ma ne ko da ngay dem ci dictionnaire bi nga xool ko man du ma la jàngal. ayca ñu daal di rafraîchir tuuti donc. Choupa su baaxee ñu xool. fan mooy jax fan mooy neex ci weekend bi comme ça ñu génn ambiance waaw Baramundi Baramundi la ñuy la ñuy commencé ak Sidi Diop le golden boy de la musique sénégalaise waaw waaye Sidi Diop Jean moo ko foto. Pape Jean la gis alors rek ah waay baax na Pape Jean waay ay waay Jean doxalal ba kenn laal la. laay euh, Pape Jean moo ko foto ba tax na tey mu daal di koy def ci affiche bi mu rafet lool lool mm-hmm. lool lool lool Sidi Diop di leen jox rendez-vous tey ci guddi incha allah fële ca Baramundi. Mm-hmm. yéen ñi na ngeen xam ne Sidi Diop macha allah du ko tee def guichet fermé. teel leen réservé est-ce que ticket yi jeexuñu sax wala wala affaire est-ce que salon yi jeexuñu parce que diggante démb ak tey li fi teguñu ko ci yoon waaye Sidi Diop euh, lu <laughs> lu kaa bi garaaw garaaw garaaw bu leen fàtte ni Sidi Diop tey dafay joué fële ca Almadi fële ca Baramundi précisément entrée yaa ngi noonu euh, c'est à 10 000 francs table c'est à 100 000 francs mhm. numéro de réservation yaa ngi noonu Aïcha Aïcha tontovier bu beneen affiche bi jàllee waaw kii sunu papa la Kéba Seck si caméra euh, bi Euh, Choupa. mi ngi waaj aussi lu rëy ak Sofia suñu sister. waaw mi ngi koy waaj soo Evans su ma juumul le 31 ak le 1er novembre su ma juumul. Mhm. soo Evans bu ma juumee rek baal ma xel ba këf rek. waaw mi ngi koy waaj non non le 2 novembre la. fële ca Gambie waaw fële ca Gambie ak soo Evans. Mhm. ak vente kii bi privé bi. waaw vente privé bi may nañ leen ko waa ah, bu muy def dafa rafet ah, loolu nekk jeune di di di nekk en plus promotrice bees macha allah rabi. ñi nga ñi ngi wax waa Gambie tamit dem foofu. Mmh. waaye tey héritage fële euh, à partir de 22h30 suñu papa Keba Seck dafay jouer comme euh, Samira mi koy waxee. booy Papa Boy Keba Boy Keba rek lay dégg mu tontu ko. Mmh. menu spécial bi à partir de 20 000 francs entrée concert moom mooy 10 000 francs. Mmh. Keba nag. moom mooy yëngal gësam Kéba nag moom moo ñuy bégal moom moo ñëw ànd ak jamono lu mu def mu neex ñu fële la ca héritage ah restaurant bu neex a neex a neex la ay ca beneen affiche bi bu jàllee rek ñu ñu ñu ñu jël ko. yéenay tànn bu leen ci neex rek ngeen dem ca. waaw lii waaw Wally Ballago Seck nag. demee waaw suba la suba dafay joué fële ca Vogue le 27. suba rek waaw moom day jugee Paris. waaw moom mu nekk Paris mi ngi Paris. waaw ko neexee kay. ah day ñëw ngoon xam naa bu ñibbisee naan kafe ànd ak Met Shop ak mm. ñaar xam nga euh, nelaw ba 18h yeewu guddi gi mu demaat Vogue bigal nit ñi. <laughs> entrée di 000 francs la euh, table yaa ngi noonu da ngay wootee ci numéro réservation tey nag euh, waale boo leen seetloo soirée mii di mujj mhm. ay retour leen di may waaw moo yooyu may ñu ko ba mu takkee bopp bi nag ay lalal basang non ba mu takkee bopp bi nag waaw lu ko neex waale baa mbay watu ji watu ji na très bien mais waale bii di ñëw nañu may bëgg leen quoi bëgg leen bi ñëw waaw waaw waaw c'est à la demande nationale à la demande nationale boobu la ma la ma ca woyoon xaw ma 2015 Eh, mais eh, loolu xam nga la laa bëgg Wally Seck Wally Seck faw mu indiwaat bëggee mhm. c'est la demande générale waaw ba tax na tey nag demain incha allah dimanche le 27 octobre dafay euh, jouer fële ca Vogue comme ni mu leen ko tàmmalee di leen mhm. bigal rek Wally Seck mi ngi waajal Adidas Arena bi bu leen ko fàtte waaye avant guy fii la koy defee mhm. chaque samedi wala chaque dimanche buñ ko mënee am fële ca Vogue lay xewee entrée dix mille francs Wally fi mu toog nii mën na maa woo léegi téléphone nañu ñu ñii Pikine Stade mu dencal ñu table. laal waaw ñu jël avant première. Ah, def leen loolu ah, mën na xëy sax nii nii nii seetaan na nu Sabiraam. Hmm, may naa daa dër ba yàqu nag. loolu ki dër loolu la ki dër bu la ko invité loolu ko ki dër Sénégal xam naa barke yàlla. mais xolal xolal waale bu doon maye sax bàyyi ko. naat dër bi xolal. bu la ñëwee xolal day jox leen. ñi ñuy nu ñu wutee taamu nga ne nga wax ko naa dégg. allo allo la jox la jox la. mais alors xol Baye Sall xolal. ñoom lu ñu wax rek defal leen ko noonu quoi. daa dër ba muy nelaw. <laughs> <laughs> kii waaw <laughs> waaw ñun mënuñoo boole ndóol. ñàkk. ak leneen mënul boo loo xamul kañ lay jeex boo ci nekkee nay neex. ñun façon daal ñuy bëgg di ree rek du dëgg. waaw wàggal seen gospel urbaine ñu jaar nañ ci léegi seen rendez baa ngi noonu c'est la 3 novembre. Uh-huh. nee naa leen fële lay xewee ci. centre socio culturel Blaise Senghor. waaw à partir de Samira ana affiche bi seen bopp à partir de 17h. incha allah ngeen fas yéene dem foofu gospel mi ngi foofu dance. Uh-huh. urbaine musique yéen ñi ngeen xam ne da ngeen am talent. voilà yi jeunes yi fi uh-huh. bu rafet rafet rafet la beneen affiche bi bu jàllee rek a gaaw parce que wax nañ ci léegi ëpp li suñu événement la li suñu événement la Titi dafay génnee album nag bu bees xam nga nag temps yi nag wax dëgg neex yàlla waa Prince Art démb rek liñ fi def ak Momo Dieng bu mu présenté album bi di waajal décembre bi di waajal tamit samp national am bi fële ca mhm. euh, arena Titi daf ñu wutik tamit boobu waaw album bi dina ko présenté fële ca Kaolack cœur de ville mhm. ànd ceeg ndaxte loo incha allah. ci mhm. concert la waa Jogoy production ñu ngi ci ànd ak waa Prince Art. dëgg la euh, ñu fas yéene leen bégal. ñu fas yéene leen bégal présenté leen album bi. Mhm. numéro de réservation yaa ngi noonu. Mhm. table yaa ngi noonu cinquante mille dix mille cinq cent mille. am ay parrain keroog Samira jàllale na parrain yeeg. marraine yéen waa Kaolack préparé leen événement bi. ma jëlaat foofu nga jëlaat foofu rendez-vous bi c'est le samedi. waa rendez-vous bi c'est le samedi. rendez bi c'est le samedi novembre incha allah. ayca euh, Titi daal di ciy ànd ak ay euh, parrain ak ay euh, marrainam macha allah pour soirée bi ku ci mel ni May Ngom secrétaire mairie Kaolack. Mhm. Fallou Kébé président ASC Saloum. Moda Samba responsable politique Djibi Dia Sapronet responsable politique Samba Tall responsable politique également Pape Mata Touré responsable politique Ousseynou Diop maire Sibassor vraiment ak ñi nga xamante ni mooy ay maanaam Ndeye Lobé Lam Fatou Sene maire de Kahone ak ki nga hmm. xamante ne mooy Dieynaba Diop responsable politique ñoom ñëpp nag hmm. euh, di jàppale di supporter suñu sœur suñu xarit ak euh, Moustapha Niang torche vraiment nara jàpp ci bés bi ca euh, fële nga xamante ne mooy cœur de ville de Kaolack yàlla baax na Samira bu beneen affiche bi paree rek incha allah ayca jàll ci waa Amadou mi ngi nii Amadou am Torodo dañuy seetaan ba seetaan sunu bopp. lii mooy kuy xalam di ko jaay. dompet sax ci sat la la 15 ma. le 15 lépp di bénéfice am ci sa wànq. le 15 lépp di doon dëgg incha allah le novembre lay nekk entrée bi nag dafa yomb lool lool lool lool muy francs fii nii lay xewee ci cosaan ñun ñii ñëpp dinañ ñeen ñi ñu namm gis. Mm-hmm. le le le le le 15 novembre dinañu fi fekk le vendredi 15 novembre à partir de à partir de lan. 23h Amadou Kero benn nit laa ci woo tey. muy kan. l'absolu business. l'absolu business. dafa yaa ngi woote. bu ma so tey. waaw tey.

waaw samp national bi nag boo defee sa koppati ak say euh, mbarakis da ngay daal di dem ba Dakar Arena fekk mm. fa moomoo jee doo ko sumi déedéet déedéet waaw nag seetlu ngeen dara dafa tàng nu mu produit yu baax yi ñu ngi ci kaw waaw samp national bi fël la lay xewee ci Dakar Arena ànd ceeg moomoo jee nga xam ne moom mooy doomu Bargny bi moom mooy doomu Yoff bi nga xam ne ah. libu yi dañoo mën seen nit waaye moomoo mm-hmm. jee du pour libu kase mm-hmm. àdduna yëpp ko bëgg mm-hmm. mu fas yéene leen bëggal fële ca Dakar Sénat c'est le samedi 28 euh, décembre incha allah. Ah, ñun ñëpp dinañ fa nekk si ah. loolu samp loolu samp international la. nekkul samp national. loolu dama koy bañ ndax mënoo jee àdduna ko bëgg. Mm-hmm. Euh, ba tax na sax ticket yi euh, génn nañu. ñi ngi commencé def vente bi. maa ngi gis vidéo ñi ngi commencé def vente bi. récemment vendredi bi génne na album bi te yéen a ngi waaj waaj leen nag waaj leen bu baax a baax. waaw pare na de kon ñun ñoo ci des moom moo pare na. démb na fi waa plus. tout tout tout. a je pense que voilà je pense que lii lañ fi amoon deux de cinq ans six ans Samira lii lañ fi amoon ci ay affiches su ma juumu non eh, laay la grandeur booy. la grandeur booy ah. la grandeur booy borom cosaan. c'est tous les samedis. à partir de 22h ah, à partir de 22h moom dafay teel ñëw sax. boo gisee vidéo yi snap yi Cheikh Tidiane ci def liggéey bu am solo maa koy mhm. suivre bu baax a baax a baax. mu ngi noonu. ci dem xooli euh, annonce bi ñëwaat. bu waaye mu neex bu faxasoo mu neex. bu feccu day faxasu. Thiès Thiès de retrouvailles Alioune Mbaye Nder di yëngal biir cosaan samedi bii passé kenn doyalul Alioune Mbaye Nder di wàcc scène bi ñu naan ko biis mu ne ma karas si dama koy dolliwaat ndax dama namoon fan si te soirée yi day teel a tàmbali à partir de zéro heure jusqu'à deux heures du matin ñu ngi leen di xaar su samedi 26 octobre Alioune Mbaye Nder et le Setsima Group kon bu leen ko kenn nettali teel leen ñëw ñu teel a tàmbali nee leen xaalis bi yéen a ko moom man moom ma ko xaalis bi sànq ba léegi mu ngi naaw a moom ah, bi ngeen di muy affiché rek tenté leen seen chance ngeen daal di woote bu ko defee ñu jox leen enveloppe ngeen daal di passer un très bon week-end ak suñu ay partenaires yu gën yu mën yi ak ki nga xamante ne mooy Michel nekk ca waaw service à valeur ajoutée macha moom it di def liggéeyam macha allah. ñu ngi koy nuyu ñun waaw dañ koy nuyu rek. waaye aussi tonton Vieux ñun dafa mel ni dafa am suñu benn gan bu nekk foofu de suñu benn gan kii. you know benn gan boo xamante ne bu rabee mu waaye mu neex bu ko bu ko diigalee mu neex. Mm-hmm, lu mu ko def mu neex. bu fekkee mu neex gannaaw bi ñu jógee ci ndeer booy nii nii nii ngeen xam ne ndeer booy chaque samedi fii da koy yëngal. ci kanam tuuti ndeer da koy yëngal. dañu xool tonton vie kooku kan la. ñu découvrir ko à la demande générale de tous les Sénégalais. waaw jigéen ju mën góor la nag woo borom baat ñi. elle est pétrie de talent walla. c'est moi qui dis walla c'est moi qui OMG. OMG bi. kon yow yaa ngi solo ko sumee. Mm. man c'est comme si ce n'est rien fait. gisuma ko sax. gisoo barke yàlla. nit di nga nekk nit mu soxoree la. focus rek. dem nga ba ñëw ba xool say ba xool say. yàlla baax na. am ànd ak keneen jàppula ma ki taxoon ñu sàkk la ang bang ñu aras doo mën a nekk keneen tamit jàppula may ki sa yaram laajte koy dawal ko mën a nekk keneen am ay waay du nekkatan raw na ko waaj wóorul ne micro yaa de il faut ñu sonal ko ah sama gan gi il faut ngeen sonal ko bi hymne national la la def na ñëpp ko bëgg wallaay dëgg la bañ yàlla na nag baat bi ko waaye lyrics bi moom loo balaa ngaa xam ne son bi kat balaa ngaa xam ne son bi benn xale boo xamante ne sept ans la muy papi sama neveu bi mhm. bu OMG di jàll sama yaay ñëpp waa kër gi ñëpp lay woo. ndeysaan ummi mi ngi jàll ummi mi ngi jàll <laughs> OMG. donc papi euh, sa star mu may seetaan depuis Bambilor sa star préféré mu ngi nii euh, ñu koy wax ummi Gueye wala OMG ñu am mhm. privilège à chaque fois euh, saa suñ ko woowee ne ko ñëwal ci émission bi mu am oyof ak vraiment contentement di ñu rejoindre à chaque fois na nga def. maa ngi si Samira lay nuyu bu baax a baax. di nuyu également ñi ma fekk ci plateau bi. di nuyu mhm. tamit ñi nga xamante ne ñi ngi Euh, tey moom yëngal nga ñu moom. ah c'est normal. <laughs> nga ñu de son bi euh, ñëpp fecc nañ ko mais Eva dama bëgg ci kanam tuuti bu fekkee mën nañ pëtëxlu. Mhm. Euh, tonton Vieux wala Pape Laye ngeen téléchargé ma wax ma lii lan la parce que son boobu aussi neex na neex boo xamante ne bëgg naa aussi ñu gën ci pause en tant que femme. et actualité la aussi ñu daal di ci copp tuuti rek mis à part li nga xamante ne mooy carrière am ak ses écritures et tout mhm. dañ doon waxtaan démb ma ne ko double EP bi fan mhm. dafa am lu ma gis keroog ci réseaux sociaux. muy Oumy Gueye. ak OMG. c'est comme si c'est de personnes. deux personnes différentes ëppee génn. moom ndaanaan bi nga xam ne nu mu génnee dëgg. Oumy c'est quoi le secret ba yow loo génnee même sa nawle yi sax dañ naan mais kii macha allah mhm. ñu nangul la ko nag. c'est quoi le secret du travail. <laughs> c'est le travail. c'est le travail. non tu bosses comment tu bosses comment comment comment tu fais wala. Euh, je pense que liggéey bi c'est ba mu tontu lii ñu ñëw ñu xool ko tamit. liggéey boo koy def ak xol je pense que ne forcément faaw mu dugg ci xol. Mhm. tu vois et moi je prends toujours le temps de lépp lu may def faaw jóge ci man mhm. c'est important loo xam ne également aussi dina mën a toucher ñeneen ñi mhm. euh, tey damay xool par rapport ak thème yi nga xamante ne mën naa ci mën naa mën naa ci wax mhm. également mélodie yi ça c'est très important mélodie yi nga xamante ne moom ngay woye jóge ci yow lu am solo la parce que lépp lu may def comme je l'ai dit je le fais avec le cœur et je pense que c'est juste ça et travailler travailler travailler rek waaw te parfois da ngay xool lu Choupa di dund lu Samira di dund wala dangay ngay gën a focus ci loo xamante ni yow da koy dund alors je pense que ne déjà lu may dundu man Euh, waaw comme li ma wax lu may dund man c'est important que loolu ma koy génn ci sama musique parce que je suis pas une personne boo xam ne damay dem di confier wu torop si ñeneen nit tu vois mhm. suis une personne boo xam ne du ma faral di wax lu ma metti mhm. donc je le dis à travers ma musique même su ma kontaanee tamit je le fais à travers ma musique waaw sama public laay donc lu bari amaana si sama musique laa koy génnee mhm. également tamit ak ay histoires yu ma touché autour de moi su fekkee ne par exemple tey Samira sama xarit la mu am lu ko metti douleuram boobu man ma ressentir ko le ressenti est toujours important si musique ma mhm. ressentir ko mu touché ma mhm. je dama si bind waaye wala ma wax ci waaw mhm. Adja xam son mës naa ko gis euh, mu def benn clip bu rafet mu ma seetaan ko mu nekk euh, mu nekk jigéen joo xamante ni macha allah physiquement macha allah donc ñu lay laaj en tant que jigéen nan ngay évoluer si milieu musique bi ndax facile na parce que doo xoolee jigéen ñi en général y a tellement de choses à faire. doo ci bëggee boole liggéey musique et tout ça comment ça se passe comment tu t'organises. alors c'est pas c'est vrai que c'est pas c'est pas facile. parce que peut-être pour ñi ko xamul je suis mariée et je suis mère de deux petits garçons. Uh-huh. Euh, waaw deux petits garçons xale yi xam nga yor xale dafa métti. tu vois xale yi dañ lay soxla dañuy soxla nga présence ci seen vie. Uh-huh. mais li may wax rek mooy toujours organisation la laaj. Uh-huh. Euh, waxtaan tamit ak sa borom kër. moom tamit mu jàppale la. waaw waaw. <laughs> <laughs> surtout loolu surtout loolu c'est important nga am partenaire de vie boo xam ne da lay jàppale. dafa bëgg sa avancement loolu dama koy wax tout le temps jigéen ñi. boo nekkee nit. da ngay xool comportement vis-à-vis de toi ku góor koo xamante ne da jàppale bëgg na nga jëm kanam mhm. kooku jar na àndal mhm. mais ku góor koo xamante ne nii dangay nekk ak moom ngay gis ay réticence mhm. ay non suma la takkee foofu da ngay bàyyi musique bi ay xam nga su la takkee nangam et cetera tu vois da ngay bàyyi télé bi su ma la takkee da ngay bàyyi aar <laughs> gel bi moo la ko wax moom waxaatul boobu la gëj a dama xool ah. raafal mbéj ma xool lu tax yu jigéen ñi du ñu amulee solidarité seen jëkkër du leen jàppalewule en général mhm. déjà des fois mariage bi day am problème léegi mhm. seen musique day am problème waaw donc ku si mel ni Daba Seye macha allah da nga gis ni jëkkëram daf koy buste c'est vrai daf leen jàppale loolu tax ma lay laaj comme alhamdulilah monsieur est là pour ah, toi donc euh, je lui dis bravo na continuer na la a jàppale boo ko xoolee da ngay xam ne gaynde gu toog <laughs> mm-hmm. la pare lépp <laughs> waaye am na benn naan ndaanaan euh, téléspectateur boo xamante ne dugg na ci liñ bi allo salaamaaleykum waroon ngaa xaar tuuti ndax Adja da doon daaneel li ñu doon wax nii da doon daaneel rek ma këf la nga daal di daw léegi da duggaat da ngay fëggaat rek yow boo fëggaatee rek incha allah di nga am euh, chance wax ak OMG euh, doñ ca yam ñu waxtaan euh, ci actualité waaye aussi waxtaan ci li nga xamante ne mooy xaalis bi nu ñuy def ba nga jot ci ñu loolu mooy suñu priorité xaalis de waaw nga xam ñu lool sama question sama question ci OMG xam naa damay su ma maa ngi jéego dama bëggul mu jënd foofu noonu OMG naka laay <laughs> da nga xamul bandi la yi xool OMG naka la gisee euh, maanaam rap féminin fii ci Sénégal euh, naka lay améliorer métti na ci jigéen ñi ñu mën a dëggal seen bopp ci ci hip bi wala. ah bien sûr bien évidemment. Ouais. parce que man je le toujours que man chance bi ma am mooy que peut-être dama def beneen style musique. Mhm. Euh, moo tax. donc waaw dama dama def leneen loo ah, xamante ne nii. <laughs> non daw ma génn <laughs> ah, non non daw ma génn mais rab bi déjà dafa métti si góor ñi. Mhm. asamaan si jigéen ñi nga xamante ne c'est un milieu très macho très masculin pour nga nekk jigéen imposé wu fa yombul boo gisee jigéen ñi imposé wu foofu bariwul donc euh, tey jii man chance bi ma am mooy que ne comme li nga wax dama dem defi beneen style musique ba grand public bi découvrir ma bëgg tamit li may def sama musique neex leen pour après am visibilité bi nga xamante ne am naa ko ci hip hop bi donc aujourd'hui on voit que ne euh, visibilité bi ci war jigéen ñi amuñu ko promotion bi ci war également et aussi gëdd bi parce que man pour man lépp looy def le respect il est important mhm. ak cër bi loolu noonu dafa manqué lu bari bari bari par rapport ak hip hop féminin mais on y travaille ça fait des années ñu ngi ciy liggéey ñoom tam ñu ngi on fait des combats yoo xamante ne on essaie d'instaurer vraiment le solo Ah. ça veut pas dire jigéen laa damay rab rek damay sol góor ñi di sol kenn waxu la nga sol jëmp ana jigéen ak sol timberline waaye OMG de bu jëmpee ba sol maillot maillot basket wala kii sol maillot ñu oh, fixé def say coquette yu cap yu kii mais est gis ngeen létt yi nga xamante ne cat la garab ba garab est-ce que xool ngeen ci boobu léegi tonton vieux may ñu wax ma lii lan la euh, très rapidement ñu daal di euh, def benn transition waxtaan ci li nga xamante ne aussi mooy octobre rose waaye am na yeneen yoo xamante ne aussi suñuy combat euh, ñun en tant que des femmes may ñu ko léegi ñu ñëwaat ay doom lan moo la indi fii kaso metti na yàgg na yaay booy soo xamoon lu ma indi fii ba may am ñetti at lañ ma jox sama rakku yaay mu yaa ma yéema xamal ma àdduna moom laay doon ko fonk njaboot nekkoon sama royukaay xamali laa la bett na ma na xoole tuuma ma na ba yàq sama ndaw wax ma lii la la xaw ma la la su dem Titanic a tëram a wane la ji ma ëmb ñoo bokk baay ku ma ko wax doo ko ragal naa wax ji kaw sama yaay xamu ko bi gàcce rey na atanu ma ko non non lii dafa diis fa ma yàq biir bi dama koy dindi looloo ne ci xel wax ma lii la la xaw ma lii la la su dem ba doon tey du demee nii su dem ba doon tey du demee nii xaw ma lii la la wax ma lii la la su dem ba doon tey du demee nii su dem ba doon tey du demee nii ci xel bi mujj naa ko jëfee yàq biir jural ma lorange jaxase sama xel ma ñàkk wér gu yaram mujj traumatisé amatuma jàmm mësuma xalaat caabi féete ma ginnaaw avortement xañ na ma sama liberté gisatuma kenn man rek ci biir kaso man lañu tooñ te ma dugg kaso dañ lay sàkku nga jaar fa wanu lor tu sa bëgg-bëgg nga jëm ko dindi ñu teg la toor jot nañu bàyyi xel ñu mel ni man pourquoi on ma lii lan la do them, but don't they do them money? Oh, my little love. Oh, ah, my little love. So them, but don't they do them money? So them, but don't they do them money? On est vraiment submergé d'émotions. Euh, ci vidéo bi. Oh. ci vidéo bi en même temps ci paroles yi. ci tempo bi. xoolal kii dafa wax ndeysaan ndeysaan ndeysaan ba sonn man bi may njëkk a seetaan clip bi. dama doon jooy. c'est comme si en fait yow yaa koy dund. Samira a neex ci mu wax na ko léegi. nee moom lépp li nga xamante ni si da koy day xool nit ñi di dund. wala mu xool la muy dund ak na muy doxalee mu di ko way. Mhm. te jafe na tey jii nii ci suñu waykat. dëgg la genre gi dañuy taxaw naan ay. Zembere. gë gës gës gës mais kii daa ñëw. thème boo xamante ne euh, daf koo daf koo way moom mais pour toutes les femmes. ñi nga xamante ne elle souffre en silence que am na ñoo xamante ne ñi ngi seen kër je vous assure ñi ngi toog dañu seetaan ñi ngi souffrir peine boo xamante ne hmm. ñemewuñoo piper un mot pour wax ko am ñoo xamante ne par contre ñi ngi révolté wu li may wax ni non à la euh, violence faite aux femmes que ça soit violence conjugale violence verbale violence psychologique sax dafa am te ñun ñoo mën a taxaw bañ euh, ci loolu noonu nga xamante ne man nag thème bii nii nag thème bi de euh, barke yàlla sa j'aimerais bien savoir mm-hmm. ba xam OMG dafa xam ku ko jege ku dund wala genre je dirais pas moom mu dund ko parce que loolu mais ba xam da nga xam. ku ko dund ko benn benn samira mais boo déggee. ma doom ji loolu man dama koy dégg xale bi mënu ma ko gëm. non elle a osé elle a dire. je te félicite vraiment parce que da laal fuy metti en mhm. fait. vraiment li dafa nekk. Euh, actualité nii dafa nit ñi dañ koy dund mais en général on le crie ah, dañ koy tapp tappal mhm. parce que ni mu demee la mais tu as osé dire ah jaale la ko si clip wan ñu scénario bi mhm. c'est ce touchant en fait mhm. donc euh, tu te dis bravo bravo bravo. parce que parce que am na ñu bëri jaaxal na leen ndax ONG moo ko dund. Euh, tey jii am na ONG yoo xamante ne dañuy prendre en charge jigéen yi ñu violé. ak xale yi ñu viole donc man li tax euh, histoire bi gën ma touché mooy que ne benn xale bu ndaw bu am 11 12 ans. lañ violé mu ëmb. Oh. donc kooku noonu histoire am touché ma oh. non du papa moo ko def mais j'ai voulu rajouter quelque chose. chose à l'histoire okay. parce que euh, tey dañuy gis lii day xew ci biir kër yi ñu nëpp nëppal mm-hmm. léegi vie xale boobu après c'est quoi la suite nan lay demee kooku yan traumatisme lay dundee ak naka lay màggawaale mm-hmm. donc moo tax ma ajouté ci loolu aspect boobu pour que mu gën a mën a toucher nit ñi et que nit ñi tamit bàyyi xel que ne loolu c'est des choses qui existent parce que mm-hmm. li tax loolu sax mooy man bi ma génnee son bi j'ai reçu énormément de messages. si ay jigéen comme ay góor ah, li ma si gën a choqué li ma li ma gën a choqué waaw ci aussi de des woy ay anonymat ay messages yu bëri yoo xamante ne dama koy jot ay jigéen di ma ko wax xale yu góor yi parfois dañuy am ay xaritu jigéen yoo xamante ne nii mm-hmm. loolu da leen di dal man am na kenn ku mu bind mi ne moom euh, tey ndijaayu xale bu jigéen bi moo violé xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi ëmb ci donc elle lui il sait pas comment aider son ami ah tu vois donc ñun suñu liggéey mooy tey rediriger ñooñu vert ONG yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal wala ah. association yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal mm-hmm. et aussi c'était une manière pour sensibiliser contre l'avortement clandestin parce que ñu bëri ñu ngi koy def ah. mais xamuñu ne loolu mën ci tëdd prison non seulement xam nañ bien sûr euh, ñëpp xam nañ que ne euh, physiquement mën na la gaañ xam nga mm-hmm. ta santé mën na ci am problème mais aussi que ne juridiquement tu peux aller en prison à cause de ça donc c'est une manière pour nous de dire aux jeunes filles ah, faites attention parce que yéen a ngi def lii mais lii baaxul ci yéen mhm. mën ngeen dem prison à cause de ça mhm. également euh, li ñuy wax mooy que ne on fait aussi un plaidoyer pour les victimes de viol parce que comme nee nañ avortement c'est et que kenn waru ko def kenn droit def qu'est-ce qu'on fait pour les victimes de viol mm. qu'est-ce qu'on fait pour une gamine qui a 11 ans 10 ans qui voit très tôt ses mm-hmm. qui a été violée par un homme un frère pour éviter ce qu'on doit faire au fait mm-hmm. il faut peut-être que cette loi am dérogation boo xamante ne ni day permettre ñu jàppale xale yooyu noonu mm-hmm. tu vois et quelle solution apporter il faut ñu wàññi violence bi aussi ñun ñun <laughs> dëgg la mais jigéen moo gën a sensible mhm. jigéen euh, ci la ko yenn problème yi di dal stress dugg lu ci mel ni tonton vieux boo ma mënee may euh, comme sama t-shirt bi ma sol euh, sama chemise bi octobre rose bi mhm. loolu yëpp c'est dû parfois à stress am ñoo xamante ñu ngi lay xokkatal sa biir kër mhm. góor ñi soyez plus indulgents envers les femmes nos sœurs parce que ñun seeni sœur lañ seeni yaay lañ comme elle si bien dit tantôt plaidoyer bi ñu war a def mooy xam ne que jigéen réew président jigéen a ko jur sëriñ bi jigéen a ko jur tos nañu gën a respecté jigéen jox ko cër jigéen jigéen loo koy loo koy xoqatal di ko mettital yaa ngi yaa ngi koy créer loo xamante ne mu ngi koy rongé et puis dafay jur leneen mm-hmm. cicatrice yaa ngi fi man tey rus naa wala sama benn morom rus na dem ci benn euh, psychologue euh, dem euh, xool boppam wala waxtaan ak psychologue boobu mm. pour mën a dindi yu bari rus naa dem ci OMG bi nga mm. xamante ne sama sœur mais bañ naa mu xamal ma sama problème donc je garde ça pour moi et qu'est-ce que ça fait après en retour da lay jural ay problème loolu boo ci mënee waxaale li nga xamante ni mooy octobre rose parce que xam naa ni que porteur de voix nga également ci li nga xamante ni a deux ou trois ans liggéey nañ ak Liska sein de cancer yi en général également donc ñuy wax ne rek xam nga jigéen ñi aussi nañuy bàyyi xel seen bopp bu baax c'est important ñuy faral di dem di defi ay tests moi je le fais souvent ay dépistage ah pour di xool ndax amoo dara ndax dara dalu la ah ah. surtout le cancer du sein nga xam ne daf fi bëri nañuy faral di ko bàyyi xel et tamit stress bi nañ ko wàññi bu baax a baax si jigéen ñi violence bi nga xamante ne moom la ñuy def jigéen ñi nañ ko wàññi parce que ah. loolu comme li nga wax le stress mën na provoquer lu bari mën na provoquer même bu dul cancer ay feebar yu bari mhm. donc nañ jàppale jigéen ñi bu baax a baax et aussi xam nga jigéen quand elle est kër day neex mhm. tu vois mhm. société bi day neex quand la femme elle est joyeuse elle est heureuse tout le monde est content ndax dina dina lekk mu dina togg mu neex mu jox la ngeen lekk ba suur lu mu am dina ko bokk ak yéen dina leen jox ngeen naan dina leen waxtaanal sourire leen rek boobu sourire def je que ne jar na cent sargal jigéen ñi bu baax a baax et di bàyyi di leen métital. voilà man bu muy euh, defee ay collaboration ak ay artistes. Mhm. Euh, day def ay duo yu bëri. day def ay featuring ba pare dafay dafay joué ci ay clip bu euh, mbokk artistes yu bëri bëri bëri. Mhm. Ah récemment am na benn sœur boo xam ne Nara Diouf. waaw mbokk mhm. nga ci clip bu sama bos bi. y a pas mal d' yoo xam ne def nga ak ñoom featuring ñoom Jaamaan Kulim Dioum mais dernier clip bi nga lancé nii. ñu gis ci benn créateur moom sax artiste la Mayakama. je pense moom woykat la. ñu gis la moom nga jël ko genre bi <laughs> rôle bi da ko da ko da ko da ko joxe à 100 pour cent ba yow boo koy seetaan sax yow da ngay am ay émotion parce que elle a carrément réussi lan mooy sa secret ba nga ba artiste si ñeme la noonu dugganteeg yow qu'est-ce que loolu ci yow la wala ci ñoom la bon je pense que ne xam nga si si peut-être man la mais si ñoom la également mm-hmm. parce que bu fekkoon ne tey man am na nu ma mel aussi ñu bari duñ ma ñeme wala ñoom tamit am na nu ñu mel duma leen ñeme du ma demee dem euh, gise ak ñoom mm-hmm. donc pour man aussi musique xam nga art mm-hmm. partage la absolument foofu lañ tollu jamono ji pour man aar partage la sottalante xalaat la Euh, ku nekk andi ñu joxe. Uh-huh. te bu ñu joxee nit ñi ci la ñuy kontaan. featuring dafa nekk loo xamante ne lu positif la ci musique. Uh-huh. donc aujourd'hui man j'ai des yoo xamante ne nii tey amaana à travers featuring yi may def dinañ découvrir artistes mm-hmm. yooyu. artistes yooyu seeni fans aussi dinañ découvrir li may def donc toujours dañ siy gagner dara. tu uh-huh. vois un peu donc et pour moi c'est important aujourd'hui ñu. yegg foofu noonu parce que musique sénégalaise daf ko soxla aujourd'hui boo gisee ñaari projet yi ma génn ñaari album yi muy ummi ak Queen Mama uh-huh. daf si am ay featuring yu bari uh-huh. ummi bi yaa Jaman uh-huh. euh, yaa Jayla yaa Aida Samb yaa Boy Jara également ci biir donc côté hip hop bi on a BMJ Cash ak jigéen yi nga xamante ñi ngi ci biir hip hop bi donc loolu mu nekk loo xamante ne man dama ko yàgg bëgg et moi j'aime les collaborations parce que pour man loolu Amadou par exemple mhm. moom il est dans son monde musical moi j'ai envie de venir partager ça avec lui xam nga ñëw bokk dugganteeg moom ñu xool naka la ñuy boole seen ñaari monde musicaux yi ah. xam nga kii ko comédien ñu def comédie musicale mën na ne mën na ne bi la am benn loolu xool thème bi nañ ko def violence faite aux hommes <laughs> dama leen dégg waaw bien sûr aussi bien sûr am na homme ñu noonu la ñuy violer il y a des hommes battus des hommes maltraités man je suis bi ne tentative tamit même AMG euh, Sénégal gi yëpp nag balaa ngay bouger fii euh, balaa ñuy jàll ci élément Adja euh, dañuy bëgg a découvrir à chaque fois kan mooy mooy solal OMG chaque fois su clip su génnee dañ naan macha allah kan mooy jàpp ci solo bi ba ci tresse yi nga xamante ne dafa dem ci catu garab ba catu garab c'est original et moi je kiffe. alors alo man je pense que xam nga comme li may wax rek xam nga loolu moo andi tey euh, versus ak OMG. tu vois OMG dafa nekk koo xamante ne elle est elle est très farfelue elle est très créative. Uh mhm. -huh. elle est dans son monde daal donc la plupart des idées si man la ñuy jóge donc damay ñëw ma ne bon sama styliste Steph de Carda kooku moom aw ma fayam. Steph de Carda moom toujours daf may suivre si samay délire. Mhm. damay ñëw ne ko Steph. voilà lii laa bëgg a def mu ne ma ay ummi ma ne ko c'est ce que je veux faire après ñu ñu essayer xool comment on peut le faire parce que fii tamit xam problème matériel daf euh, matière première daf ñuy mhm. donc mais on essaie de faire avec les moyens du bord mhm. parfois dañuy bëgg créer benn mais on se demande comment on va faire ça tu vois mhm. c'est pas évident de trouver cette matière première mais on le fait quand même lui il le fait ah euh, la créativité aussi étudiants yi mettent y a une toute une équipe derrière ñoo xamante ne comme tresse yooyu ngay wax c'est cousin boo xamante ne c'est lui qui les a faites donc lui aussi Dynasty Studio il travaille dans tout ce qui est photographie mm-hmm. vidéo design déco donc yooyu yëpp daf koy def moom tamit daf may jàppale lu bari PND bi bët ñoom ñëpp c'est une équipe derrière daal boo xamante ne nii macha allah ñoo nekk si ginnaaw mhm. et en termes de maquillage de coiffure on a Thiaba classe à beauty sama xarit boo nga xam ne dama koo sonal dama koy yee fajar nekk tey on doit faire ça et tout ça donc il faut que tu viennes mhm. euh, ñooñu daal ñoo nekk sama ginnaaw à chaque fois su ma soxlaa dara wala su ma bëggee dara quand j'ai des idées dans la tête leen mën a def xam ñu ne waaw ok on loolu mooy équipe équipe noonu la war a neef noonu la war a mel dañuy xool li nga bëgg ak ni nga koy defee ngeen organiser wu yéen ñëpp pour euh, def ko c'est ça la symbiose ñu daw très rapidement xool euh, élément Adja très rapidement parce que euh, sinon rek tàggatoo bi ngeen xaar ko SSP TV rek voilà ayca ñu dem xool ko ñëwaat <laughs> comme euh, d'habitude Adja Vessel amu Serigne Fallou ci vaisselle yu yanj yi ngeen euh, ci seen émission Weekend Start chaque samedi mu taajal ñu vaisselle yu mucc ayib macha allah ah, merci beaucoup Adja Vessel Adja amu Serigne ak Abo Cheikh Ndeye Fatou chaque fois nii la ñuy def ak ñun dressel am numéro bi 77 723 32 32 xanaa du merci beaucoup dugg dañuy bàyyi euh, Oumy mu tàggatoo vraiment. mu tàggatoo moom euh, loolu da ko concerné. ah loolu ko concerné vidéo bi guddul. ay ci tonton bi euh, may ñu ko parce que bu ma toppee ay caprice am. hommage fait aux pour octobre rose bi chaque jour ma jël leen ne leen. prévenir ah. mieux vaut guérir. mieux vaut prévenir que guérir. waaw wax naa la médecin yi ko gëmoo leen ma seetaan leen. ñu xool ko donc euh, góor yi bu ñuy nàmp. donc loolu loo xamante ne lu dëgg la lu wóor la donc euh, góor yi bu ñuy nàmp weenu jigéen ñi loolu day day réduire euh, risque de cancer yi mooy premier risque naturel boo xam mooy première précaution naturelle boo xamante ne mën na prévenir contre les cancers donc loolu loo xamante donc loolu loo xamante ne. xam nga lii mënoon ngeen bàyyi ba seetu xale yi mercredi seetu gone yi. je vous je vous l'ai dit à maintes reprises. mi mieux vaut prévenir que guérir waxoon naa la ko fii nee naa la il faut sucer c'est bien de kii allaiter. il faut téter il faut téter faut allaiter les hommes ça vous aide à à à à mieux éviter la maladie du cancer de la faim de la faim. <laughs> le message est bien euh, passé ay waay. vous avez attendu. Samira vous avez attendu. ñëpp tout le monde. il faut têter les hommes têter bien les hommes ça vous aide. c'est les hommes qui doivent. Euh, c'est les hommes qui quand les hommes vous demandent de. Ah, de leur têter. parce que il faut bien leur têter il faut les laisser. sucer les seins. élément bi loolu damay wax xam nga yi léegi lay dugg mercredi dimbali. mais xam nga mercredi. OMG euh, ñu am plaisir. vraiment euh, ci sa teewaay fi nga xamante ne weekend start la ñu bàyyi la tout simplement nga tàggatoo ak waa Ba ñu aussi waa Rufisque ak fan si lay bëggee bu baax a baax c' un réel plaisir ñu am la. waaw di la remercier bu baax c' toujours un plaisir de xam nga accepter sa invitation. de mm-hmm. ñëw si ce plateau. Mm-hmm. Euh, di remercier également ñi nga xamante ne ñoo toog fii ah mm-hmm. sama sama <laughs> mais <laughs> également di di remercier ñëpp ñi nga xam ne jël nañ seen temps seetaan euh, émission bi di nuyu bu baax a baax a baax waa baax ñi nga xamante ne fa laa dëkk donc di xam ne ñu ngi waajal un grand concert là-bas euh, ci mois de décembre ay activités yu bëri ak mhm. ay activités éducatives yoo xam ne on le fera au courant du mois de décembre incha allah donc waa ban yi nañ nañ waajal bu baax a baax soo jàppee date rek nga jox waaw y a pas de souci et di mhm. remercier bu baax également Thiaba du ma du ma taay ci di la bi ak coiffure à chaque fois elle donc ak yi merci beaucoup et merci à tout le monde. Euh, aussi euh, pour euh, émission bi. voilà merci beaucoup Samira mën naa ngi remercier bi collection Bigué. Mhm. mi ngi nekk fële Alma di kontaan naa ci bu baax tenue nice na top mhm. na après dinaa la envoyer photo yi gros bisous à toi. merci beaucoup Adja merci beaucoup aussi à toi aussi. merci à tout le monde comme heure bi jot na. c'est l'heure du journal. Cheikh Diop du may dara. Aïcha xamante ni moom moom ngi nekk fee ca amoo 600 en face station bi numéro bi 77 28 04. merci beaucoup Amadou Toch. merci beaucoup euh, xam naa may solo lañ ko mais 17 bi ma njëkk a solo ah Dou la woon. ak uh-huh. daal ak yére bi numéro téléphone bi euh, c'est le di wax ni Barça yàlla na ko yàlla may ndam Bisca Barça et Bisca Catalunya. Aïcha dinañu retrouver wu samedi prochain ñu mën a xam catalan yi ak merengue yi kan moo mëne kan moo gagné kan moo ëpp doole merci beaucoup à la régie. et très bon week-end à one love.